hello la Mifa, j'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221, mais bien sûr la chaîne des news, des plus belles chroniques, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc euh, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné, mais qu'est-ce que vous attendez Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors gars, la vidéo d'aujourd'hui concerne KBC. Taïmon, 100% KBC les donne parce que nous allons parler sur deux sujets qui leur concernent. donc premier sujet bi dañuy wax ci ki nga Double M ci clip freestyle bu mujjé génnee temps mais tamit wax ci li nga xamante signature am KBC. et enfin le second sujet le featuring de Jaskan et Nga intitulé 37 donc sujet bu ci nek dañ ci wax expliquer et détailler après bàyyi leen yéen tamit ngeen joxe sen xalat ci commentaire yi léegi commencer ñu commencé ci premier sujet bi qui concerne Double M mais avant ñu ciy xuus nañ àndandoo xooli un peu rek sur la vidéo ñëwaat léegi léegi let's go. mën naa lu may def te pourtant dafa guma li ma mën lépp nga thérapeute na ma woowee daable am buñ ko laajee turam mooy badu mën lépp mën nga fi teew ñu teeroo la jàmm mais bu guddi jotee nga judd na jeex waxal yeneen gars buñ kenn comparé dama mën a rap da mën a lépp waaw pique di dicté seen i dictateur ni nga bi nga ñu piste ñoo ngi mille à l'heure da de respect alors vidéo bi le Double M génnee intitulé Ego Drill Jazz après sa signature bir KBC Music mais gars avant de wax ci sound pour faire comprendre nañ leen wax ci signature de KBC parce que man yëg naa bu yag, yëg bu yag avant muy signer fofu. et si vous vous rappelez ça defoon na ci ben annonce à travers nos vidéos précédentes bon signature de KBC nak man dama nan ko félicitation because mérité nako trop sax parce que Double M boy la bo xamante dafa oser nit ko xam lu mu bëgg la en fait et bo len xolé lepp lu mu wara wax ci media yi day jël temps bu miser ko ci rabbi motax rarement nga koy gis ci media yi mais nak je vais vous dire de faire présentation. ni ngeen koy gisee rarement ci media yi musul génné sound mu flog bu génné sound nga xam fan sam nga wala do fan sam par la force da nga koy béggee et par la force da nga koy apprécier parce que dafa mën rap tek ci bëgg ko. da ngay déglu sound bi rek xam ni booy bi il a très bien bossé dafa liggéey nga xool ci génération wam moo leen ëpp chiffre ci côté ci parce que bu génnee sound même pas cinq jours mu mat trente mille vues et loolu mérite la ak job amul leneen en plus dafa juddoo benn site boo xamante ne ni ay jeunes talent rek la muy bawal côté yooyu mos naa faa dem concert présenté ji ko fa mais je vous jure que booy yu am talent dong ñoo fa nekk par contre problème bi mooy boo yooyu xamuñu nu ñu exploiter seen talent loolu rek mooy problème bi mais foofu mën naa ne talent le la Il y' a beaucoup de jeunes talents mais moi, nak Double M am na chance exploiter talent bu nek ci mom ba tax na public rap sen mo xam muy Bawal Dakar Mbour Thiès ñep xam nañ ko mais nak signé na label bu am doole je vous jure label bu mag label bo. xamanteni artiste yi fa nek ñep reconnaître sen talent partout dans le monde muy KBC Music tey mën naa ni Double M mooy caatu KBC signé na fa dinañ ko gën a encadrer gën koo won yoon bi gën koo teg ci yoon gën ko won business yi ak defaraat ko ba mu baax et se vraiment cool léegi nag ce qu'on va faire mooy dañu jàll ci bi sound bi sound bi comme d'habitude ego trip la parce que bu ñu xoolee sound yi mu mujjee génne yépp moom Double M ego trip la buñ nee ego trip xam ngeen ko mooy tagg sa bopp maay king bi maa fi def lee maa fi def lee genre yéegal sa bopp ba ci kaw wàccee yeneen rappeur yëpp ba ci suuf boo koy déglu nag dina xaw a niru ak pic surtout sound bi boo koy déglu dina xaw a niru ak pic parce que ego trip yu soxor la ci def mais ci biir wane na fi ay technique rime métaphore yaa tout sound bi ci boppam moo riche lépp loo xalaat mu ngi ci donc premièrement boo ko dégloo mu ngi naan. mën naa lu may def te pourtant defaguma lu ma mën lépp nel sa rappeur na ma woowee Double M buñ ko laajee turam mooy ba du mën lépp gis ngeen li mu wax fee neex naa comprendre en fait mu ne moom lu muy def da koo mën mais lu mu mën yépp ci rab bi defagu ko lu tuuti rek la leen ci ñamal en plus mu ne nel sa rappeur na ma woowee Double M xam ngeen Double M mooy turam mu ne sa rappeur moom buñ ko laajee nu mu tudd na wax moom la ba du mën lépp fii nag moo jara expliquer tuuti mu ne sa rappeur mooy badu mën lépp le badu mën lépp moo ñu ciy xaw a jaaxal quoi badu mën lépp ñun ñëpp xam nañu benn théâtre kat la woon donc bu nee sa rappeur mooy badu mën lépp double entendement la lay jox badu mën lépp mooy sa rappeur day théâtre badu mën lépp sa rappeur fenkat la parce que ku mën lépp moom ay fen la kenn mënul lépp loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko mais nag au lieu de euh, Double M wax sa rappeur nañ ko woowee fenkat dafa codé wax bi indi benn technique d'écriture buñ naan l'éphémisme moo tax waxul fen mais ba du man lépp la wax exemple boo leen xoolee kii di Karbala Jamiru mës na euh, mës technique bu mel noonu mooy fu muy waxee naan je mu vous xam ngeen nit kuy jaay boppam bu la je ay fen la ñun ay mais au lieu Karbala wax da ngay fen da koo remplacer ak je mu genre boobu nag la Double M utiliser fii deuxièmement mën nga fi teew ñu teeroo la jàmm mais bu guddi jotee nga juutu ni jeeg genre mën nga ñëw biir KBC prise sa sound wala nga ñëw double family fréquenté et tout mais bu guddi jotee force dangay ngay ni jeeg globalement ku bokkul ci team bi doo fa fréquenté yemu ci troisièmement mu ni waxal gars yi bu ñu kenn comparé dama mën a rab da ngeen mën lépp je pense ñoom A2L MBK ak ñoom Meta 106 di ngeen ci gis seen bopp en parce que yéen a bokk même génération et ñongi ngi di comparer tamit Double M néna mom dafa mën rap mais yeen da ngeen a mën lépp lépp égal fen moom moo ko wax. gars ba tey ci biir Ego Jazz on continue avec Double M quatrièmement mu ne sound bi dina la excité ba nga daanu mel ni kuy seetaan lu bon. Double M yow moom nag dangaa ñëw sa réew man li nga réewee man dafa ma jaaxal genre sound bi boo koy déglu dina la excité law en même temps am nañ punchline ci le mot daanu parce que daf ñuy jox un double entendement daanu comme nga fakkastalu daanu mais daanu trois points de suspension duma ko yeggali yéen a ma gën a xam mooy li ma leen doon li ma leen doon expliquer sànq rek ci commencement bi technique d'écriture euh, l'euphémisme la fi utiliser pour coder wax bi xam ngeen mënoon na wax mel ni kuy seetaan pronom wala wax mel ni kuy seetaan x mais defu ko da ko remplacer ak le mot lu bon cinquièmement mu ni bokkuñu comme iPhone ak Wiko genre technique d'écriture comparaison le indi Mon téléphone iPhone la y un yi ñoy marque téléphone Wiko et sixièmement mu deuk Bawal jaaxal Dakar Moy rappeur bu deuk Bawal mais talent bu mu yor ak mën dafa Dakar ba KBC woko signé ko mooy luma doon wax sank bo talent am ci gëm-gëm rek nga da job nango nga am talent liggéeyoo sama waay ça sert à rien du tout mais mu ne waat tontu ngay xaar fàtte ko laal naa ay rappeur dañoo ménopause lool gaay Double M rappeur yu ko mës a sànni pig yépp xam ma yéen a ngi may dégg xam ma déggu leen ma mais kaay leen wuyu nee na bu dee tontu ngeen di xaar mën ngeen fàtte parce que mu ngi beneen level moo yéen bokk leen vous êtes différent du ngeen benn en plus laal na ay rappeurs yoo xam ne dañoo mujjee euh, ménopause le mot ménopause ména euh, métaphore la autant que pour moi parce que ménopause mooy jigéen boo xamante ne mënatul am doom mais lu mu bëgg a wax mooy am na rappeur yoo xamante ni dañ koo clash ménopause nañ parce que seen carrière gaare na donc yéen ñi ko clash pour mu tontu leen mën ngeen a fàtte loolu parce que nee na moom mu ngi ci beneen level talul ay tontonte et septièmement mu ni buuru ak rappeur def ci tuuti soos toxuma naanuma kafe man zoos bon fii moom door na fi rim yu nice ak next level yi mënuma jël yépp nag pour euh, bañ video bi gudd parce que bon yéen a ma gën a xàmmee nice na trop sax buuru ak rappeur ak tuuti soos maanaam rappeurs yi ñooy ay plat préféré am genre allusion la def ci dib duñu gis ba mu demee Vibe Radio ne euh, rappeurs yi ñooy ay plat préféré mu ne toxuma naanuma kafe fii tamit allusion la def ci zos parce que mo doon wax duma ma duma du naan café mais Double M Double M est-ce que yomb na nga gis ku dëkk Mbàkke te du naan café non je pense pas waxuma la amul de je dis pas que ne amul mais en tout cas man dinaa ci def mes propre recherche parce que loolu moom ma perso gëw ko alors gars on a essayé d'expliquer le sound de Double M intitulé Ego Drill Jazz 2 vraiment le jeune est très talentueux gars, s'il vous plaît dem leen ngeen vidéo sur la sur sa chaîne YouTube ngeen abonné ci moom tamit may ko nopp teg loxo ko il est très talentueux et à venir ci biir gambi. donc wax leen ci seen xalaat noo le gisee le sound la vidéo nous l'en guissé aussi le jeune rappeur en personne à clavier, claviers Baye Nambou Voilà euh, wax scène ci commentaire ce qu'on va faire nous dañuy faire euh, le deuxième sujet qui concerne le featuring de Jazz et Ngaka Blende au nom de 37 mais tamit dañu waxale en même temps ci signature Jazz Kana biir KBC juste après la vidéo let's go Primo got the juice. dañoo ak si kaso football final léegi ñoo ngi danse ngeen leen incorrect kuy dugg ci ñun yokkal sa prudence ñun nga bëggoon lekk ñoo la seyal def la plat du jour Fini nii ñoo lay muur yege sil ñu jox la secret set sa xel dootul yàqasoo lu bind nga ne ok ay yes Fini meta alors gars vous avez vu la vidéo et lii mooy première vidéo wu Jazz Kana moom tamit après sa signature bir KBC Music clip bi nag nekk featuring boo xamante ne ni rêve la woon ci moom jaaskaana Kana parce que boo leen fàttalikoo ba mu jëlee hip hop feeling dañ ko laaj kan nga bëgg defal featuring et automatiquement il a répondu Ngaaka Blindé et Ego Trip laa bëgg def ak moom te yàlla def liggéeyam ak talaawam ak palmarès bu riche bu mu def tax na mu signé biir KBC am featuring bu mu doon rêvé du chance nag mérite la et Diaz Kana na lu ëpp lii kii fu mu teg bëtam du fii yëpp doomu Fatick la waa Fatick seen doom jaaskaana wane na boppam et def na lu ko war li ci des nag ci seen loxo la nekk léegi nag dañuy jàll ci biir sound bi le sound a pour titre 37 37 boo ko déggee mooy jaase jaase comme jaase kankurang yéen a ma gën a xam jaase mais nag gars yi sound bi gis naa ci lu nekk j'ai tout vu ci biir sound bi technique punch jeu de mots big up tout premièrement ba leen xoolee vidéo bi nu mu commencé rek dafa nice jaaskaana ci charrette la wàccee yor saak jóge Fatick pour dem KBC signé ji fa exemple comme ni Macky Sall jóge Fatick rek dem ba toog ci pale bi à Dakar mais ba Dias Kano wàccee ci charrette bi pour dugg biir euh, label bi di KBC mën a gis Ngaaka Blindé dafa dugg rek am borom kanam yu bizarre yum dajal ci porte bi ñi sol ay kagul ñi yor ay arme et xam naa ñoom lëz la ñoom mor KBC am ñoom dañoo bëgg ay bandi bandilu ñooñu euh, la fekk ci port bi mais ñooñu dañ koo téye ñu téye jaaskaana ni di dugg après ci lañ leen defee siñ ñu bàyyi ko mu dugg donc lii day wane ni dugg biir KBC yombul c'est pas du facile ay nit yu baax am Pastef ñoo ko sécuriser balaa ngaa dugg di nga am foo jaar ba pare loolu la clip bi di wax. alors gars yi ba leen xoolee euh, premier couple bi jaaskaana moo ko dóor et bu ngeen ko dégloo bu baax mu ngi naan. xëy dañoo agsi ka sa football final léegi danse gën leen a incorrect kuy dugg ci ñun yokkal sa prudence ñun nga bëggoon a lekk ñoo la yéesal def la plat du jour fii ñoo lay muur jege sil ñu jox la secret set sa xel dootul jaxasoo ñu la bindal nga ne ok ayees bind mee taaru ba ñëpp di yuuxu te terewul ñun ñoo ngi ci album bi toog KBC wala bokk sa gaa yi nañ dajj ndax projet bi mësul flop baaba booy dañoo oyof lool kon Kandji Tingom seen légende hip hop Tupac ak Biggie ñoom la Simon Sène yàgg nañ maa cokkaas man may toj kaas doo tous pétaas feccal bombaas dangay gun taj man may faalaay damay gin cee ba sa biir pax ñun ñooy kikee yow ngay pik toi-même tu sais attanoo succès bon fii da ngay gis jaaskaana dafa ñëw def ay name dropping ci albumu Ngaaka Blindé bii di Secret 7 parce que boo xoolee titre yi la def ay name dropping boo ko dégloo mu ngi naan ay incorrect ay danse ay ok ay mooy name dropping yi mais lii dafa nice dafa nice trop et boo doonul bindkat doo ko mën et lii da ciy jàngat bigam Ngaaka Blindé bigam album bi di ko valide et respect boobu seen normal parce que gàlle wala label boo dem am na kilifa jaas loolu la xam loolu la wane tax mu ñëw bigam ngaa Blindé ci biir euh, sound bi avant tout boo dégloo refrain bi rek mu ngi naan nii la see biir KBC di reetaan parce que dafa kontaan mu ngi wax loolu ci refrain bi deuxièmement tamit Ngaaka ñëw dóor couplem def ay name dropping ci Jazz Kana Ngaaka Blindé dafa nekk koo xamante ne nii buy def ak yow featuring ci euh, ci loo ko woor rek dala ci wuy si ak loo ko mënti woo dala ci wuy si ba xoolee Jazz Kana defal na ko ay nem dropping mais moom tamit pare def na name dropping ci Jazz Kana alors moom boo ko dégloo mu ngi naan nee nañ baaba du maye kon man kaana laa kaana comme Jazz Kana mu ne am naa ay sàmm yu tàngal seen trois points de situation duma fa yegg kon man la jazz jazz comme jazz kaana mu ne seen saawun yee siiwul soosul singom singom comme singom comédien mu ne tojul saaraba xëy ku mag clash sa taat yi table d'honneur xaal sa bulletin ñëw ma jox ko sa papa xam ne baaba la noteel si def poup mooy amoo douche yenn moyen bon fii dinañ fi am punch sur punch douche dalay jox un double entendement douche comme toilette démé douche mais euh, pour nga comprendre ko fo nga basé wu ci le mot pour nga comprendre douche comme chiffre mais pour nga comprendre ko tamit fo nga basé wu ci le mot moyenne man mathématique bind sadik bitch man téma samay secret Hugo ak Platon dama Martin Luther bu Won, danan man le king Hugo Victor Hugo Platon mon philosophe la ñun ñep Matière Luton mooy Matière ton King Ngaaka name dropping la def ci ñom motax moi mu ne ko même bu dekki won danaan man King la bon après ka def na Ben punch moy fum nan man taluma nan ay vin je sais pas si vous comprenez ou pas mu ne man taluma nan ay vin ndax dama deux fois dix le mot vin aussi dañu jox un double entendement vin comme un comme une boisson alcoolique mais pour nga comprendre ko nag foog nga basé wu sur le mot naan mais vingt comme chiffre pour nga comprendre ko tamit foog nga basé wu sur deux fois dix parce que xam ngeen deux fois dix égale vingt après jaaskaana ñëw ne ko ma yokk ci quinze ñu ne dama leen a jam xam ngeen deux fois dix égale vingt vingt plus quinze égale trente cinq et ça signifie couteau maanaam paaka sound baa ngi nii nag gars yi essayé nañ expliquer et vous faire comprendre mais attention newuñu nak par la force luñu wax mo am mais tamit attention nekul ni luñu wax par la force amul dañu ñëw rek euh, partager ko ak yeen xol li nga xamanteni mom moom lañ ci mëna expliquer ñu ñëw expliquer leen ko pour ngeen mëna comprendre pour tamit ngeen bayyi seen xalaat ci commentaire donc noo leen la vidéo de Dias et de euh, en featuring avec Ngaaka blende les 37 wax leen ci seen xalaat noonu le son la vidéo noonu leen gisee aussi ki nga xamante ne ni moo di Diaz à vos claviers bye, mu mais gars avant de continuer aussi noonu leen gisee ki nga xamante ni moo di blendé. n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Kenza 221 la bien sûr votre animatrice de luxe la grande chroniqueuse nous allons wax sur deux sujets nee naa une vidéo tey bi 100 KBCL donc n'oubliez pas de vous abonner Commençons le jeu sur Instagram sur le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo Peace la mi fa gros bisous à vous restez bien connectés à la prochaine et am bye bye love you all